altine ñaar fukki fan ci weeru décembre doon bës bu kenn dootul fàtte ci adduna wërngal këpp ndax tey la ñuy féete ñaar fukki fanub anniversaire bu génnub àdduna kii di Léopold Sédar Senghor moom Léopold Sédar Senghor doonoon président de la république bu njëkk ci Sénégal ci atum 1960 ba 1980 doom doomu séeréer nekk jàmbaar loolu ba ñëpp nangul koko kii di Léopold Sédar Senghor juddoo sa Joal ci atum 1906 niki ñaar fukki fan ci weeru décembre la wuy ji boroomam ci atum 2001 nekkoon homme d'état français waaye doonoon ab bindikat bu ñëpp ràññee woon lool lépp lu mu doon wax daf ko doon tënk ci valeur ak culture bokk na ci ñi sos mouvement négritude moom ak xaritam boobee di Aimé Césaire duppee woon ko négritude du lenn lu dul nangu nekk nit ku ñuul ba noppi fier ci ndax dañoo war xam ni amuñu lu dul sunu sunu histoire sunu aada sunu cosaan waaye tamit sunu culture tax lu bari ci ay téereem moom Léopold Sédar Senghor am màndarga der bu ñuul ñu fàttali leen tuuti ci ay textam yoo xam ni boo ko jàngee mu firnde gëm gi mu gëm boppam ak bëgg gi mu bëgg boppam di wane der bu ñuul saa su nekk ci àdduna wërngal këpp bu ñu ñëwee ci recueil bii di Chant d'Amour mu ngi ci wax femme noire tagg ci jigéen bu ñuul der bu ñuul ba képp ku nekk jigéen bu ñuul loolu dangay ëpp loolu ndax kàddu yu taaru yoo xam ne na la jël tegoon ko ci der bu ñuul waaye tamit teg ko ci jigéen mu ñuul ba xam ni fépp fu waay mënti nekk rek dangay naw der bu ñuul ñu xool recueil bii di Aussi noir ak étudiant noir gis ci moomu culture valeur waaye gis ci moom lépp li nga xam ne moom mooy der bu ñuul loolu yépp di wane ni fépp fu mu mës a jaar rek der bu ñuul lay sigil ca kaw waaye duñu fàtte ni moom moo bind sunu hymne national bi nga xam ni moom la namoo di ko bàkku fépp fépp fu ñu mënta nekk doomu séeréer bi am agrégation ci grammaire en ñu gis ni moom moo nekk doomu dex bu ñuux bi nga xam ni moom moo njëkk am médaille d'or ginnaaw bu mu amee ay raaya yu bari waaye tamit gannaaw bu mu doon gagné ay prix yu baree baree bari Léopold Sédar Senghor doon ab héros international jiite Sénégal tollook ñaar fukki at tey jii ci ab fàttaliku Sénégal Afrique ay xaritam ay ñoñam waaye àdduna wërngal këpp di ko ko ñaar fukki fan ci weerub décembre 2001 nekkoon bés boo xam ne nag dafa tiisoon loolu waaye métti woon loolu nekk bés boo xam ne kenn dootu ko fàtte moom Léopold Sédar Senghor li mu def si ma nekk lu dul tabax ay ndaw tàggat leen wan leen yoon bi ba ñu xam xàmmee ràññee nekkoon ancien chef d'état du Sénégal li ñu mën a wax ci moom dafa bari lool ndax ab jàmbaar la woon bu kenn dootub na table moom doomu séeréer bi moo sos parti socialiste bàyyi ko fi ba léegi ñu ciy jariñu nekk doomu Afrique bu njëkk am agrégation ci grammaire française doon doomu der bu ñuul bu njëkk dugg académie française li ci gën a neex ñëpp rekk mooy kii di Léopold Sédar Senghor moom moo njëkk a nekk président de la république boo xamante ni fii ci Afrique moom dafa bàyyi nguur te jeexalul mandaawam ba mu demee ba nga xamante ne nag moom mi ngi bëgg a wàcce boppam dafa jël kii di Abdou Diouf daat koy teg ci bopp réew mi ngir mu jiite Sénégal jaaxal nasaraan sépp ak ay ñoñam waaye tamit di wane bu baax a baax ni dafa nekk ab nit ku dëggu nit ku bëgg réewam bëgg culture am waaye tamit fonk cosaanam ak làkkam li mu fi bàyyi bari na loolu ba tax na kii di Aminata Mengi Ndiaye nekk secrétaire général parti socialiste li mu xam ne rek mooy dina def ab événement bu mag a mag a mag duppee ko journée du souvenir maanaam bës boo xamante ne dañu kiy fàttaliku jaar jaaru kii du Léopold Sédar Senghor waaye boo xamante ne bésu ñaan lay doon ak wàcc kaamil dem ci armère kii di Léopold Sédar Senghor daal di koy ñaanal waaye tamit daal di fay sànni ay fleur li nekkoon nag mbébétu kii di Léopold Sédar Senghor mooy bés bu dëddoo àdduna ñu daal di koy dent ci ay mbokkam moom Léopold Sédar Senghor li mu mbébétoon rek mooy bés bu génnee àdduna ñu daal di koy denc ci ay mbokkam ak ay njëgeñaaleem waaye nag loolu ba léegi gisaguñ ko kii di Léopold Sédar Senghor xam-xamam ne seng ca kaw mu xeexal der bu ñuur ba ñëpp daal di koy naw cosaani nit ku ñuux moom Léopold Sédar Senghor moom moo ko wesaare ba mu law kon nag jokk njal te jii nag ñu doon fàttaliku rekk tuuti ci ay jaar-jaaram seede yëpp nekk benn ay xaritam ay mbokkam ay ñoñam kàddu yëpp nekk benn waaye àdduna wërngal këpp di ko ñaanal rek moom Léopold Sédar ngoox mu xippee ci àjjana yi si